de onze heures la yëf yi commencé ba heure ndogu ñu dog ci heure ndogu quelque temps après ñu dellu si recommencé li bees ci yëf yi la dul wax yi salte yi nga xam ne Adji Raby Sarr xamee nañ ko ko mu di ko wax tout le temps teg ko ci euh, deru Ndeye Khady changé wu ca lenn mais lu may wax tout le temps nit ñi nga xam ne am naa opportunité échanger ak ñoom ñu mel ni sama mag ji Siré Ndiamé Touré wax dëgg yàlla si la saa yu gars yi yëkkatee wax ji rek fitna lañ koy teg te au de la de de les acteurs nañu fàttali nañu bàyyi xel ñi nga xam ne ci askan wi lañ bokk te am ay santé fragile ñu mel ni sama mag jooju nga xam ne saa yu déggee fitna bu mel noonu rek day pat pat du tranquille lu dul ñu wax ak moom moom mu daal di euh, bokk si ñi nga xam ne fitna bu bu rëy rëy rëy wax dëgg yàlla lañ ñu teg lañ teg seen kaw leneen nag li ci xew mooy bi aji expliqué. ne leen loolu am na te yu mel noonu daan na am parce que musta wax dañ koy cagatuloo musta wax loolu musta wax it moom cagala parce que bu ne dañ koy cagatuloo loolu mooy mu nangu ni moom loolu la donc wax jooju aji waxu ko mais nee na am na ay yëf yu bëri yoo xam ne da doon xew ci salon bi te kii nga xam ne moo di témoin nee na du ñenn ñu dul ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci saal ba naka noonu

daal di woo ñi nga xam ne nee na ñoom ñooy ay témoin ay nit ñoo xam ne ndeysaan am na ñoo xam ne déglu leen depuis plus d'un an mu xëy tey jël téléphone ne da leen di woo pour que ñooñu ñu mën a confirmer seede li nga xam ne mooy euh, euh, affirmation yu gratuite mooy wax yi naka sa kandang yi muy wax yoo xam ne tegu ko fenn bi ñooñu bi mu leen woowee ba raccroché ñooñu jëlaat téléphone téléphone wo Ndeye Khady ne ko aji woo nañu nee nañu pour ñu wax lii pour ñu wax lii pour ñu wax lii. Euh, kii di Ndeye Khady Ndiaye consigné loolu yëgal ko juge d'instruction bi pour mu dugal ko ci dossier bi xamal ni aji mu ngi li wax insubordination de témoin ganaw bu fekkene mom mo ni ne ñoy ay témoin mu ngi deluat encore di woo ñu pour préparer len pour que ñu témoigner en sa faveur légui nak est ce que témoins yooyu nañ len wo wala det yalla rek xam mais en gros mo wax li mo xew la xew nag ci saal ba du xuloo diggante Ndeye Khady ak Adji Raby Sarr déedéet du saagante diggante Adji ak Ndeye Khady déedéet mais saagante la diggante ki nga xam ne mooy maître El Hadj Diouf ak ki nga xam ne mooy Ndeye Khady euh, euh, njaay loolu nag jàppante bi jën na presque ñetti waxtu ku nekk léegi nag mu ni maître El Hadj Diouf xamal ni juge bi ndëgëm ki saaga na ko saaga yi si kanamam juge bi daf ko war a jàpp dugal ko ci kaso bi juge bi xamal ko ni waxul ak man yow lay waxal waaye it yow euh, Alaaji Diouf yow yaa tàmbali hostilité yi maanaam yow Alaaji Diouf yow <laughs> yaa yow yaa njëkk saaga bu ko defee ñu delloo la ko ñi nga xam ne ñooy avocat wu euh, euh, Ndeye Khady ñoom ñëpp courage les bras taxaw seetaan parce que nee nañ du ñu calmer seen client parce que sawaay mom mu ubbi saaga yi ak waxi ñaaw yooyu.